ñoom waa Benno ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi wax nouveau type de député am na ñu bari di ko wax am na ñu naan dañuy dem ci assemblée de rupture bari na ñu bari di ko wax parce que jàpp nañu ni tey jii moom mooy kàddu gi nga xam ni moo dëppook bëgg bëgg askan mais man dama jàpp ni ñun ci Benno Bokk Yaakaar lu ñu gëm la lu ñuy taxawee li ma ci joxe firnde benn la tey ki nga xam ni mooy président la république di Macky jamono yi mu nekkee assemblée nationale président bi fi woon bëggoon na ko teg loo nga xam ni jàppoon ni loolu ab président de la république waru ko jox teg député assemblée nationale mais ba mu ko tegee dafa bañoon kon tey jii bu fekkee yàlla def na mu nekk président de la république ak pas-pas ak bëgg bépp bu mu am bëgg koo teg député te dëppoowul ak njëriñu député njëriñu réew mi defe naa ni député yi la la mu la mu la mu nangulul woon Abdoulaye Wade démb du ko nangu duñ ko nangul tey pour wane rek ni jaar-jaar yi ñuy jaar te yu bari mu wax ko léegi dama jàpp ni lu amoon la mais ñun ci Benno Bokk Yaakaar jàpp nañu ni dootuñu am taxawaay boobu jàpp nañu dootuñu waxee noonu jàpp nañu ni ci askan wi la ñu jóge parce que ñun contrairement yeneen coalition yeneen parti yi Macky Sall tabbul député yi nga xam ne suñu ngi suñu gis. donc Cheikh Gueye dinaa ñëwaat ci yow ci kanam tuuti rek yow laay joxaat kàddu bi dama bëgg juste rek ñu dem tamit Fatick ndax maa ngi ko doon junj sànq pour ñu xam aussi résultats yi naka la tëddee foofu laata ñoo dellusiwaat ci ñu ngi fay fekki Bokar Dieng Bokar ñu ngi lay di gox bu am solo di gox bi nga xamante ne mooy fief politique Macky Sall ñu bëggoon rek Bokar nga wax ñu résultats yi naka la tëddee foofu. waaw résultat boo xoolee boo demee fi nga xam ne mooy Thierno Mamadou Sall nga foofu la Macky Sall mhm. jëlee bureau numéro 6 foofu euh, boo xoolee euh, bureau numéro 6 euh, inscrit 168 la cent 116 valablement valablement exprimé donc cent cent 116 bokk Benno Bokk Yaakaar am 80 PDS am 4 Bokk Gis-Gis am 6 CVD am 6 MP MRS am 4 donc boo xoolee daanaka aussi bureau numéro 1 foofu la Macky Sall voté inscrit bi 869 869 cent 360 Benno Bokk Yaakaar am 80 cent 295 PDS am 17 benn bokk gis-gis am 11 bokk ñàkk am 6 askan bi am 7 MRDS am 6 donc boo xoolee ñële yëpp di diggante 0 ak lañu am ñeneen ñu si des it daanaka boo xoo boo jëlee bi nga xamante moom mooy euh, Thiaré Thiaré nag dëkk la boo xam ne mu ngi côté Jaxaw euh, euh, foofu nag boo xoolee inscrit bi 445 la votant 227 Benno Bokk Yaakaar moo am 150 Benno Bokk Gis Benno bokk gis-gis am na 54 Benno Bokk euh, PDS PDS am 54 Benno Bokk Gis-Gis am 4 SPD am 1 foofu aussi daanaka lu si des yëpp daanaka ñoom ñëpp 0 à 1 la ñu am euh, boo xoolee bureau numéro 2 euh, toujours si Thierno Mamadou Sall donc inscrit 863 et votant 300 300 330 38 Valablement exprimé 337 Benno Bokk Yaakaar am 276 PDS am 17. benn bokk bi 6 am 9 euh, faxas am 12 bés du ñàkk am 9 donc boo xoolee daanaka boo kay ko calculé ñu dem si bi nga xamante ne bureau moo nga xamante moom mooy faydaali foofu nag foofu yàlla def nañu foofu gannaaw bu euh, ñun ñëpp journaliste la daje foofu jot na def cumul bi foofu nag am nañ lu toll inscrit am nañu lu toll ci euh, mille mille six cent dix sept benn mille six mille six cent quatorze votants Benno Bokk Yaakaar am 1381 PDS am 60 Benno Bokk Gis-Gis am na 12 donc Faxas am 21 euh, Benno euh, PVD am 23 MRDS am 18 donc au total boo xoolee euh, fii si diwaanu Fatick donc ndam ni daanaka waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko jëlagum ñi nga xam te ñoom ñoo si jege ñi nga xam te ñoom ñoo nekk waa PDS ak Benno Bokk Gis-Gis de temps en temps am na benn ballottage mais surprise muy ñëwee daanaka si ñi nga xam te dañu mu nekk nekk nekk faxat vraiment am nañ fi ay score yu yu acceptable quand même dans l' ensemble si si diwaanu Fatick loolu lay ànd ko pour l' instant si de taux de euh, taux euh, de de taux de vote xoolee daanaka. am na muy avoisine aux environs trente cinq pour cent fii ci diwaanu Fatick loolu la jàppagum euh, pour l'instant Cheikh bu fekkee amoo yeneen question d'accord Bokar merci merci infiniment résumé bi leer na euh, ni nga ko waxee aussi leer na nañ te gis nañ ne daal pour le moment Benno Bokk Yaakaar moo rawagum man may continuer nag ci plateau ak benn représent Benno Bokk Yaakaar ndax Cheikh euh, ndax yéen ba fi nguur gi nekkee beneen beneen beneen nguur gi mooy nguuru Ablaye Wade mhm. daawoon ngeen wax ne boobu yeneen ci opposition bi nguur kenn du ko jox lépp mhm. waruñu ko jox bopp jox ko bumi jox ko genn tey nag yéen ngeen nekk fii tamit ngeen ne nañ leen jox lépp lan mooy différence su raisonnement boobu xam nga boo delloo ci 2007 d' abord élection présidentielle yooyu waaw élection yu bëri contestation loolu opposition bi bëri na loo xam doon nañ ko ŋàññi ci élection yooyu ñu jóge fa sax def élection législative ba fàttali ko opposition significative bi dañu boycotté woon élection législative xam nga jafe-jafe yi mi ngi tàmbalee foofu nga ñëw en 2012 Macky Sall rafet palin ndax askan wi yëpp ñoo ko fal au ci coalition ñëpp ñi nga xam ni candidat la ñu woon ci élection présidentielle yi dajaloo def benn dënk nekk Benno Bokk Yaakaar ànd ak askan wi fal Macky ba ñu ko falee ñu ni du ñu yem ci palu présidentiel bi rek dañu ko war gunge kàttanal ko dooleel ko ba bëgg-bëgg ak gis-gis bi nga xam ni am na ko muy yoonu yokkute muy conclusion assise nationale yi muy bëgg-bëgg askan wi mu mën koo jëfal doxaliku ko looloo tax bi ñu defar liste yi du Macky Sall moo tànn fii tànn fële coalition yi ci seen biir ñoom ñoo xool naka la ñuy fexe conformement ak parité bi ak yéene ak bëgg-bëgg bi nga xam ni bëgg nañ koo am ci assemblée bii war a taxaw ñu tànn nit ñooñ ñu tànn daf leen ci liste donc dafa wuute lool donc nga gis ni ci biir Benno Bokk Yaakaar du benn parti rek du benn coalition loolu rek gage de sécurité la parce que coalition yu bari te coalition yi bu si nekk ay parti yu baree bari ñoo nekk ci biir donc diversité la ba nga xam ni moom mooy def richesse su coalition boobu ndax jàpp naa ni réew mi fu mu toll tey ji bépp investi te tey mën nañu jàpp ni député Benno Bokk yaakaar Yaakaarul koo ci fëgg buntam tey naam dana ni la fii laa bokk waaye dana la wér ni la bu demee assemblée nationale la ko fay taxaw taxaw moom mooy def liggéeyu député bu war taxaw ci biir assemblée nationale. dëgg nañ la wóote naa ñi nga xam ne démb dañu doon wax naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Hmm. comme ni ñu ko waxee léegi ñooñu Abdoulaye Wade moom moo leen dem jëli dindi leen ci liste bi woo leen dajale leen loolu sax man gis naa ne ci élection yi ñu weesu. moom ci boppam amul ci seen coalition bi. amul ci suñu coalition. Ah. ñun coalition Macky Sall forcé wul ma kii kii Moustapha Niass ne mooy tête de liste. imposé wul Macky Sall mosul force kenn. wax na ko imposé wul Moustapha Niass. imposé wul kenn mbirum tête de liste bi. Macky Sall waxtaan na ko ndax moom mooy président coalition Benno Bokk Yaakaar waxtaan ak nawlem yi mu bokkal Benno Bokk Yaakaar ba ñu d'accord ni Moustapha Niass war na nekk tête de ba mu nekkee tête de liste xel yépp jàpp ni ki nekk tête de war na mën a nekk président assemblée nationale ba coow lu jibee ba mu àgg ci moom ñu làkk ko wax na wax ju leer nañ mooy ni bu ñu falee député yu ba noppi ni ñu taxawalee kuréel yi muy kuréelu Benno Bokk Yaakaar ba defar yi ba mu pare noonu la ñu toogewaat dajee waxtaan ba xool assemblée nationale kenn la ñu fa war a tabb mu nekk président de su ma la comprendre baax da nga bëgg a fu mu toll nii ba tey Moustapha Niass c'est pas encore dit que mooy doon président assemblée nationale su fekkee yéene gagné. fi ñu toll nii. Hmm. ñu ngi wax ci waxu élection yi naka la ñuy fexee ba am majorité assemblée nationale. bu ñu demee nag ba am majorité bi nañ ko def woon ca njëlbeen bi pour defal liste waxtaan ba juboo noonu lañ koy defewaat pour xool kan moo war a nekk. président assemblée nationale noonu ñu ko defe woon noonu ñu ko waxe woon la ñu koy jëfe et Macky Sall président Macky Sall wax na wax ju leer nañ ni moom il est pour la séparation du pouvoir. ma des ma des ak yow tuuti Cheikh Cheikh Cheikh Gueye xam nga sànq ci sa biir discours yaa ngi wax ay waxu yaa ngi wax assise nationale. yaa ngi wax seen programme. Mm. mais gis nañ ne malgré cela ba nga jot a junj sax maanaam boycott bi nga xamante ne l' opposition dite significative maanaam yéen opposition bi ngeen di woowee seen bopp. Mm. ne yéen opposition bi nga xamante ne moo tax ñu naan opposition ci réew mi da ngeen boycotté woon législative 2007. Mm. waaye gis nañ ne malgré cela. est-ce que euh, taux boobu maanaam taux de participation boobu nga xam ne ja yeggoon na ba 34 virgule 5 pour cent selon les chiffres officiels ak taux de participation bi nga xamante ne tey yéen ñi boycotté woon boycotté wu leen ànd ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ay jamono ay parti politique ay député ngeen yéen ñëpp ngeen bokkaat defaat élection est-ce que tey assisté ñu a un boycott populaire tey lay wax. de du ma ko xalaate noonu. Hmm. lu tax mooy en 2007. waaw nit ñi gis nañu ni. élection yi amoon nit ñi génn ñu vote loolu lu wér la ñëpp xam ne bii nag kenn génnu dañu gonfler chiffre yi et gëm naa ni man tey li muy néew néew hmm. ci nit ñi li génn tey jii génn ko woon ci jamono yooyu hmm. waay li ñu mën a jàpp ci élection bi ci taux participation bi dégg nga léegi ki la relation bi nekk Fatick hmm. moom mi ngi wax aux alentours de quarante cinq pour cent non 35 pour cent la. 35 pour cent la 35 pour cent la dafa mel ni 45 pour cent la. dégg ci moom 35 pour cent mais li mu mën jàpp cher. 35 pour cent 35 donc li ñu mën jàpp mooy bu fekkee ñu ngi gëstu wàllu élection nee naa la depuis 93 depuis bi ñu xaajalee élection présidentielle ak élection législative chaque année ñu organiser élection législative taux bi dafa wàññeeku war nañu nag toog gëstu xool. lu ko sabab pour ñu mën saafara ko ndax mbir moomu du mbirum politique rek wala mbirum Benno Bokk Yaakaar mbirum askan wi yëpp la mbirum nation bi yëpp la. parce que ndax. tey boo xoolee élection yi en 2012. waaw li ci am ci liste 24 listes mosul am. nit ñi yaakaaroon nañu ni parce que am na 24 is nit ñi daañu gën a mën participer ci élection bi mais saafaan ba lu ñu gis est-ce que loolu tamit newul li xaw soofal tuuti mbir mi. ndax jàpp naa ne xëy na bu liste yi yamoon tuuti bañ a bari bariwaay bu mu bari xëy du indi nit ñi soofantal ko nuñ ko soofantal loolu aussi mën na nekk jàng boo xam ne mën nañ ko jële ci ñàkk génn nit ñi premier juillet bi d'habitude bu ñu daan organiser élection yi mais ñu ngi leen daan def weeru février mars yi jamono yooyu te élection yi mi ngi am le premier juillet bëgguñu woon prolonger autre mesure mandat wu député yi fallait ñu amal élection yi